jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. mbokku internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi ba tey ci wàllu politique moom Bouba Ndour di rakk ci yuusu nduur te mu nekkoon fi ministre conseiller daal dinay rek dugg ci pecc mi ndax mi nga xam le ni kon ca nu mu gën a gaawee njiitu réew mi Macky Sall war naa nag mën a amal élection présidentielle yi laata kon ñetti fan sax ci weeru avril bi nga xam ni kon ci la fi war a rek daal di jóge ci bopp réew mi ngir nag ñu daal di euh, tourne nag histoire bi jàll ci leneen mu nu itam rek jëm ci li nga xam ni euh, moom la réew mi daal di dund situation boobee kon ndax élection yi rek moo ko daal di waral kon ca nu mu gën a gaawee ñaar fukki candidat yi war nañu nag wàcc ci nag biir réew mi ngir amal seen campagne. rappeur bi di wuyoo ci turu xalifa daal dinay nekk bàyyi maanaam kon daal dinay am tout tànk daal di koy tuddee kili nag di bàyyam di maître xure Ba loole nag le journal bi daal di xamle kon mu ni doom jilee maître Khoureychi Ba la ko daal di tuddee rek ngir rendre ko hommage ginnaaw mu ni kon ni mu ko nawloowee ak li nga xam ni rek mooy jikko bu rafet bi nga xam ni am na ko tey jile kon mu daal di ab am ab tuut tànk daal di koy tuddee bàyyam bile di maître Khoureychi Ba